mbokk internautes yi daleen ak jàmm nguur guy jeex mooy xeeñ ci euh, boori Macky Sall mooy nag analyste yu bëri li nga xam ne moom la ñu daal di gis muy ab euh, jeexal boo xamante di gu tragique la pour président de la république Macky Sall euh, proclamation résultat provisoire yi nga xam ne commission nationale de recensement des votes def nañu ko le 4 août bi ñu génn confirmer tendance yi nga xamante ne nag yu diis la daal di nag dessiné wu au soir du 31 juillet 2022 ci nag bañ surseoir ci proclamation résultat provisoire yooyu le ngir mën a daal di annuler ay procès verbaux yoo xamante ni signé wuñu ko euh, daal di nag yenn ci ay département sax lañ ci cité bokk na ci nag département yi nekkee ci bët Saalum muy nord euh, nord du Sénégal Matam Podor Ranérou ak Kanel euh, commission nationale de recensement des votes daal di violé de manière flagrante li nga xam ne mooy disposition bu article L0 143 bu code électoral mi prévoir rectifier redresser wala annuler procès verbaux yoo xam ne dafa bëri coow ci yenn ci ay bureau de vote malgré bourage urne yi le eh, ci yenn localité attesté eh, yu ci ay procès bo yoo xamante ni eh, daanaka nag existé wul te kenn signé ko ñeel résultat yoo xam dañ ko inversé ca département bu Louga yewi askan wi daal di koy nag gagné mandataire bu yewi euh, daal di nag ko euh, li nga xam ne mooy corrompre daw nag ne ñu ngir faciliter falsification résultat euh, ci commune bu Sierre Bérésina itam régime Macky Sall mi daal di nag subir pire de électorale depuis 2012 mu mel ni nag coalition Benno euh, bëgg def nag bonne figure euh, réalité bi nag jamono ji mooy euh, bon Benno daanaka ci suuf la nekk il est minoritaire ci assemblée nationale titre yu médias internationaux yëpp daanaka nag juumuñu journal Le Monde di souligner que c'est la première fois depuis l'indépendance du Sénégal di ab pays bu nekk di Afrique de l'Ouest en 1960 ba tey que formation au pouvoir di perdre majorité absolue ci assemblée assemblée nationale eh, te war a daal di nag booloo ci nag yeneen di force yu parlement bi ngir eh, daal di jàllale ay luwaawam yenn ci renseignement majeur yu scrutin yi 31 juillet 2022 yi mooy opposition yëpp tendance gum ci mënti doon ñoo am majorité absolue ak 83 députés contre 82 eh, députés yu Benno Bokk Yaakaar daanaka ci point de vue li nga xam ne mooy mathématique cohabitation moom mënuñu koo bañ looy am la Thierno Alassane Sall bu aar Sénégal daal di nag affirmer publiquement ancrage am ci opposition bi ne nag désormais heure euh, euh, classification pour euh, Pape Diop moo daal di nag dikk moom daal di xam ne boo ko gis-gis Pape Djibril Fall bu les serviteurs itam publiquement de manière claire war nañu manifester seen appartenance ca camp bu opposition bule mu nag bëri ay nag supputation yoo xam ne ñu ngi koy wax ak yeneen ci ay député yu wàllu yoo xamante ni bokk na ci mouvement bu Serigne Mansour Sy Djamil daal di nag orient